Chérie, ça va Vidéo n'a pas encore commencé. Ah, chérie, toi aussi, tu es toujours fâchée. C'est pas toi qui m'as demandé de, de, de, de, jouer le jeu hier. Je n'ai fait que faire ce que tu m'as demandé, ou bien Adèle, je demandé de jouer le jeu, de faire semblant. d'être fâché et de rentrer au Gabon, tu vas me devancer là Comme ça, je vais essayer de récupérer ma part de l'héritage et vous rejoindre là les enfants et toi. Mais je ne t'ai pas dit d'attaquer ma grande sœur. Tu sais, celle-là, je la connais depuis notre enfance. Elle aime les bagarres. Quand elle mord quelque chose, elle ne lâche pas. Elle va te mener la vie dure ici. Elle va te mener la guerre. En tout cas, si elle veut la guerre, elle va me trouver de faire la demande, c'est d'être Elle va te lancer des pics, mais ne réponds pas à ses provocations. En tout cas, je te laisse, je vais te prendre avec ta famille. va bien Ça va. Ça que tu nous cuisines aujourd'hui Aujourd'hui, je vais te faire du riz au poisson blanc, du tchéboudjan. Eh, le riz au poisson, mm. c'est mon plat préféré. Mm. Dis-moi, est-ce que tu vas tout mettre là, tous les gnam là et tout ça y aura tout dedans. En tout cas, je voulais grignoter, hein. mais je préfère réserver mon estomac pour le chef. Pas mettre n'importe quoi à l'intérieur, j'attends le chef C'est comme ça. Tata, viens, hmm. on va cuisiner ensemble. Ah, putain, ma fille, tu me vois là. Hey je n'ai pas bien dormi. J'ai passé une mauvaise nuit, je te dis. Ah mal partout. Je pense même que j'ai un peu la fièvre. Mmh. J'y vais alors. En tout cas, demain. qualité donc c'est la teranga sénégalaise. d'accord je veux faire ce que tu veux. parce que c'est la plus belle. yow. la yéen a mën na ñàkk ii tonton comprendre kii kii ma def keroog xam na ma ko wax. yaa ngi si jàmm ci jàmm. maa koy toppatoo toppatoo bu baax a baax. maa ngi koy toppatoo yow kay tonton malheureusement yow lañ toppatoo. Ah, si ñu ngi may toppatoo nag tonton sa biddew a ngi may toppatoo Adela ngi may toppatoo man kay double toppatoo laa. na la toppatoo ci lépp ku ne mais sa jéeg bi toppatoo ba ca war. tons kii mel ni lu mu fi teg daw kii nu mu lay toppatoo da lay crier da lay yuuxu elle est en train de vvvv nan la la toppatoo xooloo ko dem bi jaawee ba weex waa gis ku ko gis defe ne moom a mag te maa ko mag fuuf <laughs> problème rek kay am dëgg la da ngay béy da ngay da ngay da ngay ñuulal man a ñuulal xaw ma sax nuñ koy defaree salon yi léegi kenn béjjawul wallaay ñuulalu ma sama yaay di ñuulal kan sama yaay buy dem salon da lay tàgg mm, ñooy am fu ñu dem nii lan may am pero nii nii xoolal leen de laa lay yëgal mm. fii sama territoire la la maison de mon fils mm. ah ici c'est chez moi. c'est vrai. fii maa ko moom moo tax xale yi waxee c'est moi. mais tonton bi nga fi duggee nii am nga koo fiy seetlu. tante biddéew bi tata gisaguñ ko. tata waaw gis naa ko. jox nga mën a de comme ni sàng ma nga def kalso sàng ko comme ni sàng ma dama sumee ko dese ci ret naa sàng ko. Hmm? faama lépp kenn du ko wax. Ah? kenn du wax lépp. kon baax na on se voit. ku lay toog dalaa xam yow ku lay gam-gam ni dalaa xam. man ñu xam te ne moom la kay si saag bi mu saag. Hmm. kaay ñu gisee. sànga suuna karamu mbaan yow fi nga bokk yàq bu rëy bi nga bokk eh kii kii day ay foo kii di jantal mun njaay di gën a màgg di gën a boo di gën a coofe dafa amul nag toppatoo rek moo tax bi jaaw bi génn eh, macha allah sa faamu pétrole bi nga xam ku ko ko sànni mu tàkk jéegu pétrole te toi que ma gaar waale vous êtes en train de donner mon oncle l'autre femme sénégalaise qui te toppatoo je dis toi là toi là depuis que vous êtes rentré là en fanfare, là, mm. si je ne parle pas, c'est parce que je respecte mon mari. Hein. Mm. Je n'ai pas peur de vous. Ah, les habits brillants, en plein soleil, en plein eh, midi. Vous n'avez même pas honte. Ça, c'est l'habit du Sénégal. C'est le habit très joli là. La Sénégalaise m'a boule comme le, vous. Le mois de Ramadan. Tout le monde habillé. Je me m'en eh, vais. Je n'ai pas envie d'aller en prison. Vous amené la prison. Qui va corps concorde. Moi, je va En fait, si je te laisse là, c'est parce que je ne vais pas aller en prison. Je suis venue ici là, c'est pour l'héritage de mon mari. Et j'ai découvert Abidem, j'aime tellement sa nourriture que c'est pas à cause de vous que je vais gaspiller. Toi, tu vas femme agressive. Tu es tellement agressive. Tu vas taper mon tonton, mon tonton nga yebal Adel mu ñibbi comme bàyyi ngeen fa xale yow nga toog mën a régler fii situation bi. grande sœur loolu sax nga fekkoon ma nekk di ko régler ak moom soo gisee mu génn attaqué la. loolu laa ko doon wax pour moom mu jiitu ma dem fële ndax xale yi mu fa bàyyi. Moussa sa dem dootul gaaw. yaa li nga toog nekk ko àll boobu tey dara réglé lépp a ngi taxaw bi nga ñëwee nag danga war a réglé lu baree bari Moussa yaa kilifa kilifa góor la lu ma lay mag doonte maa la mag du tee yaa nekk sama kilifa yaa fi réglé mm-hmm. bàyyi new fi yaa nekk ndey new fi yaa fi nekk. Adel yàbbal ko mu ñibbi yow nga toog fii. loolu moom maa ngi ci mais xam naa toog bi moom du mën a nekk parce que xam nga xale yi papa ak sa turandoo ñoom war naa leen a indi fii Sénégal loolu mooy sama projet bu ma leen jotee ba indi leen nag bu boobaa dinaa mën a toog mais fi mu nekk nii mënuma toog. defar loolu nañ ñëw c'est possible nga toog fii yónnee leen bi hôtesse si accompagner leen ba fii ñu jëli leen aéroport. Moussa. ah waaw grande sœur. yow fi mu ne nii yaa ngi dem de kii ngay xool nii tante bi deew la. daa koy xam naa waaw. la nag. <laughs> te kii xoolal. Hmm? amul jëkkër. gis nga ko noonu. <laughs> jigéen la. Uh-huh. jongoma na. Mm-hmm. elle est douce. te macha allah man façon yii laa bëgg ñii laay wër. man ñii laa soxla. jongoma sénégalais yi moom boo leen gëj a gis heure bu leen gisee rek Hmm. macha allah kii moom macha allah. kii de ni nga koy xoolee nii fàtte nga ma sax lu ma la wax fàtte nga ko naa la bàyyi sa xel naaj ci foofu. yow nag da sa xel a ngi naaj ci ah. foofu. Ah, ah, yow nag kenn du ko wax mu ngi noonu kon waaye dama la xam nag. yow dama la xam. ak Maggi arôme sa wàññi ngi gën a yànja gën a melax. ak yow tamit Maggi arôme am na ingrédients yi nga sopp yépp

waaw fii dama fee war a toog. non fii ak ni mu demee nii ñibbi rek nga war a def. yaa ma ñibbi ma lu tax lu may réglé. yow loo mënul réglé de loo mënul réglé de looy doo ko réglé de près ma cee réglé dara fii yow demal man damay fanaan. ok yow yaay comprendre naa li parce naa ni man bi Moussa ñëwee ba léegi laa laa ndeke Moussa nga gën a bëgg ci loo bokkal yow ñun ñii nga jur sax man ak maa sax Moussa nga gën a bëgg. maa kii nag sama xol la ndax kii dafa yàgg àll te kii dafa topp ci man ah nuroo gën ah, kii duma ko jëndee geneen nag ba sa doom ji ngay indi si àdduna oh, oh, oh xoolal faama bul dugg ci loolu waxuma dara waaye daf fee gis tànt bi déew hmm? du ko baat loolu laay rek nan ko réglé ndoo ensemble ko mukk non non non ay damay toog réglé ko loolu du yëfu xale de demal non non mën naa ko dóor ay email jox ko code tonton ni ko tonton attaqué ko bul ma dem yaay ma bul ma yàq dama dama waaye man maa doon woo nga ma daan daan ma daan foonal ma yu mag. maanaam ñëwaguñ ba tey. ah nañu de. si guddee nañu trop. guddee <laughs> ñii ma xam. Hmm. ñëwaguñu léegi de ñii dañoo bëgg xew de. loolu nga foog. comme seen gan ñëw na comme gan am na. Hmm. mën nañ toog dix jours duñ tegaat fii seen tànk. ah mais c'est normal aussi tamit xam nga da ko namoon depuis des années gisante wu ñu tamit. léegi faama lu muy wuti du bàyyi yaayam rek dem. ah nijaayam la dafa toog waxtaan ak moom. ñii dama leen a xam. ñii dama leen a xam de yow ñii mën nañoo def fukki fan seen tànk duñ ko tegaat ci kër gi mbum baay ma wax la dara. maire bi am na loo xam ne musuma koo wax kenn. maire bi. mës naa ko fee jox xaalis pour mu dem màkk. maire bi xaalis bi ba nii demul màkk waxaatul lu ci jëm mu lekk xaalis bi waxuma ko kenn dama ne patt rek. mais sûrement il a eu une raison valable tax mu def ko tamit. raison yi du dara mooy tuddee doom yi koy tuddee ñu koy marrainer ay conférence ay programme di ko tuddee ay njëkke ay ndey ndey ndey njëkke xaw ma naan mm-hmm, yooyu kese xaalis xaalis bu mu am foofu la jëm. xam nga maman tamit dafa yaatu moom bëggul kenn mer day bëgg tout le temps ñëpp moom lu mu am rek nit ñee ko moom. ñii dama leen a xam. lee dama leen a xam dama leen a xam yow ñii liñ ma def fii ñii def nañ ma lu ne. damaa mën a muñ rek. <laughs> comme newuñu fi nag. Ah. dëppal ay ji. muy renversé ay faama newu fi. moo waroon a aye. waaw léegi baal ma aye ci yow ma yéeg aye ci yow benn la di. Hmm. waaw léegi bu ñëwee nag. même bu ñëwee même bu faama ñëwee yow. yow am nga droit sax ñaan ko ay. na ko hmm. parce que yow da koy may ay. ñaata yoon nga may faama ay am nga droit ñaan ko ay. ah mais faama man ba ma ko ñaanee ba dina ma ah, lañ ah, ah, da ngaa relax nii. léegi lañ lay léegi lañ lay tudd naan xam. pourtant dama ne woon naawoo maa maas ba xam départ nga. yaa nobaate nag. yoo xam nga ne boobu maa ngi yoon bi. sama yaay téye na ma sax ma ne ko yee dem man maa aaye nag ku aaye wal sa moome du ma toog fenn ma aaye <laughs> dama bëgg sama aaye yéen a ngi ci jàpp waa miis yéen miis woon a ñëw toog nii bàyyi kër da mu toog mais tekk takkaloo ngeen ci weeru koor gi nii nii waaw léegi lan la ah maa aaye di kër xam nga nag yow fi nga jël ay teg ko fa nekku fa toog nii waxtaan lii lan moo ci nekk. Miss moo teg jonge fu mu nekk fii amul jonge nag heure bi heure bi heure jonge fii nag du yëfu jonge moom. ah lii kay jonge la nag. Ah, génn jëjën yi ma ko waxoon a yor. waaw génnee ko defaral na ma defar la lépp. waaw baax na kon kon xaama dem ci waañ bi commencé defar. awa yaay hmm? dama la soxla woon waxtaan mën naa la gis juste une minute rek du yàgg. waxtaan waaw loo ma mënul wax ci suñu kanam alaaji bi ba jaam. man de yàlla xam na ne xaw ma lum lay doyee. ah bon comme dalaa soxla loolu kay am na ci droit nag. waaw am na waaye. ak ah, yow am nga droit fekk ma ma toog. Mm. kii toog. Mm. nga ne ma dama laa soxla ma jóg. yow mi walla nga ne ko moom dama laa soxla. Ah. mu ba ma fi jóg. <laughs> yow am naa fi droit boobu ñëw taxaw ñu la dama laa soxla nga laan ko jugoo di xatraay. waaye mu jot naa jóg. moo la jugloo nga jóg. waaw ah, jóg jóg nga jóg am na kay jóg am na. <laughs> jóg bi jóg bee naturel. jóg jóg naturel waaw ci après. yow lay so nag jàmm salaam rek la nag. Mhm. boo gisee ma woon dafa parce que bëgguma woon wax ko kanam mu dal. waaw hmm. sa sa ayu bi moom laa bëggoon nga may man. comme ça ma ayu tey. ay Miss Thiam nag dawali waxtu may tub gisee. waaw may ma sa ay bi noo jàkkaarloog sa moromu jéeg naan ko may ma sa ay ay yow man xam nga ay fan na ma toll yow man fonk sama ay tax ma bàyyi sama yaay nii sama nijaay namm gi ma ko nammoon nag lépp situation yi nu war a régler ma abandonné pour ñëw gérer sama ay bi nga ne ma jël ko jox la ko pour lan foo ko teg. aw ah yaay man la Miss Thiam de yow yaa ma yàgg bi ñaan sama ay ma la koy may man tey ma ñaan la sama ay ma ñaan sa ay nga ne da ngaa bay. Eh, bokkuñu nag comme faaroot ak maaroot maag yow pombiteer ak Angleterre la teer a ñu boole xam nga teer bi kan la dan dan nañu liñ amuñu liñ ko waa yow de waaw ah kay pour mu leer bu ma ñaanati ay waaw ah kay. waaw taxawal bul dem awa yaay yow tamit lii boo ko defee lii lii rafetul de bu ma la gën a gore bu nangu loolu. Euh, en parlant de gore nag man moom gore moom boo bëggee dégg dëgg di ma gën a gore man damaa gore di ba ngor ni ma judd naa ba toll nii xaw ma fu ngor féete musuma dem ngor njaaram gore wu ma de pour ma teel wax na sama vrai visage surtout ma ci affaire u ay du ma ko fooyi sa dëkk sa dëkk sa dëkk waaw awa yaay taxawal eh, ah yaay mais Awa yaay may ma sa ay bi yow man waruma la ñaan ngay bañ. mais yaa ba ñu ci dana jiitu wala lu mayoo ma maa sama ay mayoo ma ko force la ah. taxaw Awa ah yaay Awa ah yaay nag ay bi dama ko ko ko. Dis-le toi aussi, depuis que j'attends mon tchèp là. Comme ah. tu sais que le tchèp blanc, c'est mon plat préféré. Mm. Ah, ça. Grande sœur. Le tchèp poisson, c'est mon tchèp préféré. J'aime trop le tchèp blanc. Chérie, tu te rappelles à Liboville là J'avais préparé un tchèp poisson là. Oui, je Ah, on ne peut pas comparer ça au de Biden. Parce que Biden, elle connaît préparer des. Biden, fais vite, s'il te plaît. Bah, je Madame, pour ton retour, Ça, c'est mon ceeb préféré. Ceeb poisson. tous les ingrédients là. J'espère que tu as mis les tubercules dedans. Oui. Tubercules, patates, euh, oui. choux, euh, carottes. <laughs> je vais bien manger ce soir. Ah, vidéo toi aussi, depuis que j'attends là. Ah non, moi, j'ai trop faim. Eh, hey, tu dois me dire que Hey, kaanu sax ñu woo Kenn woowu ko nag. eh waay ndaw gan gu yeewi bee ngeen am. ceeb poisson.